moom tey yow doo ngay ziaraat bu baax di ko yëkkati ndànk-ndànk muy jóg mu nekk loo xamante ni eh, trop trop trop eh, noonu lay demee rek ah mais balaa ñu commencé dara damay bàyyi rek samay invité sénégalais yi nuyu téléspectateurs yi ñu ñëw ñi nga xamante ñu ngi seetaan via Facebook aussi xam nga ñu mën a tàmbale li nga xamante ni euh, mooy émission bi nee naa la euh, képp koo xamante ni pare nga fecc na nga euh, pare pare parce ngi la maa bu baax a baax maa ngi lay ziar bu baax DJ Kalou maa ngi lay nuyu di la ziar gis nga rek waaw noonu la nga nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan ci direct bi waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di ziar waa Euh, Rewmi TV Rewmi TV maa ngi leen di nuyu bu baax di la nuyu yow di nuyu sa naataangoo yi ma fi fekk ñëpp di ziar sama grand bi ma àndal Amadou si di ziar ki nga xamante ni mooy Almaami bi nga xamante mun naa ne tey euh, am ko parce euh, nekk problème xaarim da nga woo sax mu naa la non même dans cinq minutes ma kii la <laughs> mais xaarim gannaaw ba nga nuyoo téléspectateurs yi ah. euh, ñuy internautes yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan euh, via Facebook euh, léegi yow est-ce que mën nga ñu définir il tuuti rek kan mooy xaadim waaw xaadim benn Baye Fall rek mhm. boo xamante ni bi day jàng musique mhm. di jéemantu waaw juddoo caaro yi mhm. yaroo fa bëgg musique di ñaan yàlla aussi mu defal ñu ci li nga xamante ni bii moom lañ ci séntu mooy succès am ci réussir xam nga daal lépp loo xamante ni bii musique musicien mu ngi koy am ci musique yàlla defal ñu ko. Mhm. waaw. xaarib euh, euh, ginnaaw ndeysaan euh, dégg ngeen ko mu nekk doomu caaro yi nekk nit ku xeebu lool mm-hmm. boo leen déggee ci ay kàllaama rek nga xam ne taalibe la parce que moom tur bi rek ndeysaan firndeel na lépp mais xaarib ci ban année nga dugg ci musique waaw musique maa ngi si dugg ay deux mille vingt yaakaar naa deux mille vingt nga dugg si yàgguma ci lool waaw. Hmm. mais yàggoo ci lool mais da nga ñëw def lu nice ah. waaw dañuy jàng rek xam yàlla dafa dogal ñu bëgg musique ñu mm-hmm. duggoon ci benn group bu ñu wax groupe jàmm parce que musicien ndongoloo yëpp ñoo mm-hmm, nekkoon mm-hmm, foofu ñoom Djili Niang Ménager ay ñoom Amadou Signy ñoom Ousmane Camara borom Africa 360 nga xam ne ci labelam laa nekk morceau yi ngay dégg yëpp moom moo ko liggéey ci moom foofu laa nekk xam nga nekk fa ak gars yi ñuy dégg ñi ñuy woyantoo ñu fas yéene ñoo jàppale defal ñu benn morceau mais après la suite nag ki nga xamante ni bi mooy Ousmane kamara moo am labelam label boobu képp ku xamante ni ci Amadou ngay dem di liggéey. si moom mag la ci abu cubaloo nekk suñu gannaaw bu baax dañuy jàppale ci musique waaw mhm. ñu ngi jàng daal dañuy jàng mhm. lu ñu ci mënti def rek ne gars yi jàpp ne maanaam ku jàng la rek bëgg musique bëgg mhm. euh, ni mooy magu abu cubalo euh, umpale woon ni ni abu cubalo nekk ndaanaan boo xamante ni euh, kenn dootu ko lay def bi rek man am na loo xamante ni naa ko yëg ah, te bëgg waaw te bëgg gu ko ko yëg léegi mais nag euh, ñu gis ndeysaan nga ne deux mille euh, deux mille vingt nga commencé li nga xamante mooy musique mm-hmm. mais gis nañu ci mm-hmm. la euh, ci yenn ci yenn événement yi nga xamante ni yaa ngi koy def comme yenn jàkkaarloo yi mm-hmm. ah, yenn simb yi sax da ngay ñëw participer ci ak yeneen yi nga xamante ni activités yi nga xamante ni moo ngi am au niveau de la banlieue gis nañ la ci yaa ngi ci percé lu bëri bëri te or que mën nañ benn trois ans nga ci nekk waaw loolu nag xam nga mbir moom boo ko bëggee da koy da nga tey jii su ma amee jot damay dem si Amadou. Mm-hmm. su fekkee aw ma jot parce que dama yor métier aussi damay ñëw su fekkee aw ma jot ba aw ma jot. maa ngi jël ah, sama tailleur nga di waaw di déglu. ay mm-hmm. su nduur wala may déglu. <laughs> Malick Faye tailleur la de. wax ko <laughs> waaw yooyu war a sol. Euh, bu ko defee xam nga moom moom. dina si jàpp ñëw waaw ah, kon jeex na. jeex na amul benn problème. waaw ah. noonu la demee xam nga affaire moom boo si nekkee. Mm-hmm. maam passion la nit yàlla mooy dogal nga bëgg ko. lu leer bëggee aussi nag. du mhm. danga koy bëgg noonu rek toog il nga dem ci ñu mel ni Amadou ñu mel ni Ousmane Camara. Mhm. ñu teg la ci yoon lépp lu ñu gis mhm. la waaye du ñun. la rek ñun ay dong lañ dañuy jàng rek. waaw ah, nee na dañuy jàng mais nag ci jàng boobu noonu rek ah, fa la ñuy tàmbalee ci li nga xamante ni ah, ñu bàyyi ko rek xam nga mu yëngalaat mu yëngal ñu tuuti parce que actuellement nii daa mel ni ko xaw a sedd ma ngi bëgg naa voix bi voix bi yëg tuuti mu bàyyi ma bàyyi rek téléspectateur spectateurs yi xel bu baax a baax euh, Xaadim Lam mu ñëw am lu ñu may euh, en ouverture euh, ñu déglu na ko. waaw comme ci gàmmu leen jógee dañuy woy yonent bi rek. waaw ayca kooku ku jar a woy <laughs> lépp looy tàmbale ci moom ngay tàmbale. Rasulaay Seydina Muhammad yow yoneen yaa juddoo fa Makka nga day fa jëm Madina xayral waraa caam bëgg sëñ Moustapha si borom mu taan si diina wal mu taan si daat yen nen ay saan kon Moustapha ku ko mas a ñaawal ñaaw ndeysaan a ñaaw fii doo fi ñaaw fii dang fii rafet أي مصطفى نور نزيم خبيارا به خزار خيسارا من كان في أم القرى من كتا خير القربى مدينة تفادم بني لنا في ليون الجد سيارم دين داو ngir sopp na dem dina toog fa dem bu loola neex leen tëdd andi saa yaram ngir sopp na dem dina toog fa dem bu loola neex leen tëdd sa yaram dina daaw ngir sopp na dem dina toog fa dem bu loola neex leen tëdd sa yaram dina daaw ngir sopp na dem nabi dawloo sa saaba yi daw ni nabi dawloo sa saaba yi daw ni musuñoo daw jaasi ñooy jàmbaar nabi dawloo imaamul baraya seydina muhammad mooy yeneen mustafa jaasi ndeysaan lépp luy leer mbaa muy dox mbaa muy raam mbaa muy noy ci daraja yi sama waa jooje lay jële leere jooje waa kooku ma yeneen ñoore aale sambaay jengoon jaamu jineem yagga xaybaro aale sambaay jengoon jaami jineem yaa kon musuñoo dawi jaasi ñay dalla musuñoo dawi jaasi xaar ndeysaan ndeysaan eh, eh, ndeysaan nee naa la actuellement nii émission bee ngi waaj a yàqu eh, parce que ndeysaan ki nga tudd tey jii mooy sang-sang yi mooy ki nga xamante ni mooy borom gàmm bi nga xamante ni génn nañ ci ko koy Seydina Mouhamed paix salut sur lui mu indi woon ko tey nag mais nag xaadim daa mun moo xaw a jaaxal tuuti parce que li nga yëkkati si sang-sang yi yëngati ko si ki nga xamante ni mooy Seydina Mouhamed mais xaadim yow pour lan rek focusoo ci li nga xamante mooy ci wàllum religion seulement euh, parce que umpale woon ni sa papa imam la euh, nekk <laughs> imam ratim bi nga xamante ni waa Caaro ñëpp euh, presque ginnaawam la nekk mais nag yow nga ñëw rek jël milieu showbiz nekk ci mbalax beeg pàqar ñi ki yow pour lan loolu waaw xam nga musique musique dafa nekk benn affaire boo xam ne dafa doy waar mm-hmm. parce que man sax bi ma koy bëgg xaw ma lu ma ko bëgg loolu mm-hmm. yàlla moo ko jël rek def ko sama xol ma bëgg ko mm-hmm. te tamit nekk musicien taxul a bon ah. mhm. mën nga nekk musicien sax yàlla def la wàllu. Ah, kenn ah. xamul parce que ku gis ku mel ni ndongolo. Mhm. woy na ba dem mais ay woyam yëpp benn boo ci teg rek jubanti na nit ba taay. Mhm. woy Thione jubanti na nit ba taay. man pour man musicien messager la quoi. ça dépend nag ci yow miy woy. naka ngay def ba sa musique jariñ nit ñi. mais pour man musique. bon nekkul lu lu bi comme que imam la yow mënoon nga nekk ci ginaam rek nga xam ne paa bu demee benn instant mënatul eh, jógee kër ga di dem jàkk ja ah, bu ko defee nga topp ci woy boobu noonu nga nekk nga topp ci ginnaawam léegi bu géré jàkk ji nekk fa imam <laughs> ma nekk imam ci woykat yi rek <laughs> <laughs> Ah, donc ndeysaan ah, comme dégg ngeen ko ndeysaan nee na mu nekk imam ci woykat yi ah, mu nekk nit koo xamante ni actuellement ni mu ngi basé fi nga xamante ni mooy Thiaroye mais mën nañ ne mais fi nga xamante ni aussi mooy Guédiawaye fépp nga xamante ni ngi fay yeewu xam nañ ko ci lu nga xamante mais Khadim Lam uh-huh. gis nañ nee nga tey ji ay imaamu ñi nga xamante ni ñooy ñooy woykat yi uh-huh. mais Khadim Lam dañ lay gis tout le temps rek yaa ngi si si si jàkkaarloo yi uh-huh. yaa ngi si simb si Khadim ñooy facette yooyu noonu ngay boole noonu. waa xam nga wooy moom wooy moom dafa nekk loo xamante ne bii maam bu fekkee yaa ngi koy def fa la ngay dem di ci yenn barab yi di hmm. gëstu. parce que tey mën ngaa ñëw sax ci ay jàng fekk ma fa ma toog mën nga maa fekk ci simbu mën nga maa fekk ci mbappat mën nga maa fekk fu nekk. Hmm. parce lenn lu ci nekk rek mën nga faa jël benn tuus boo xam ne boo ko indee ci lii mën na neex nit ñi. Mhm. loolu moo tax jàkkaarloo yu aussi tamit xam nga suñu liggéey la. Mhm. tey nit mën na laa jël ne la dama am mariage wala dama am ngénte. Mhm. dama bëgg nga ñëw bégalal ma samay nit loolu c'est normal. bu ko bu ko defee nga woy suus. waaw woy lépp. woy suus fecc suus ba pare nga bëgg a dem ci jàngee. def yëpp loolu nit la rek. ah ah <laughs> yaa ngi nii boo jógee fii Amadou <laughs> waaw yaa ma invité pour ma ñëw mbalax bu mu paree léegi mën nañ ànd dem julli ji timis euh. ça n'a rien à voir bokkul yow euh, da nga gis ne daal war ngaa mën a suus jógee ci suus yi dem ci jàng yi bien sûr mën ngaa suus ba ñàkk tooy xepp dem nga jàpp ba seetlu dugg ci jàkka ji julli yàllaay baal mhm. waaw ndeysaan lu am solo ah euh, parce que nee la gis nga nee la personne ak personnage mhm. moom i ndeysaan liggéey bi rek moo ko bàyyi foofu noonu boo ko gisee rek nga xam gisee rek ah, firnde ñi le muy xaadimul Moustapha mais nag euh, di boobu léegi euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi caaroy mhm. euh, ngi dégg Cheikh Seka ah, mhm. parce que ñëw na réew mi filing ñu ngi dégg Seka mhm. di dégg Samba Diarra Mbaye ba ci ñoom Pagaay Mbaye ñoom ba ci ñoom Xaadim Temps ñoom ñëpp ci banlieue bi la ban ban ban rapport nga am ak ñoom bi nga xamante ni tey jii ni pourquoi duñu gis yenn featuring yi nga xamante ni di nga def ak di nga ko def ak ñooñ à bi ñu gis Euh, c'est que récemment rek def naa ko benn morceau. bu ñuy mhm. wax salmini ma. Mhm. man maa def partie solo yi ak yenn kër yi. Mhm. moom sama papa la déjà parce que ñoo bokk koñ ba pare papaam ak sama papa dañuy ànd. Euh, Cheikh Seka sama rakk la. waaw bi nga ma yónnee vidéo bi rek maa ngi naan kii xamul ne kii ma yónnee nii sama rakk la ñoo bokk lépp. ñu dëkk caaro yi lépp rafet à part ça ñoom Samba Diarra ñooñu peut-être miinante wuñu bu baax. mais au fur et à mesure yàlla mën naa dogal ñu xamante ah, mais lépp ci banlieue bi yow est-ce que doo jéem a déplacé nga jéem a miinante ak ñoom. nga xamante ñoom bien sûr boo xamante ni mi ngi ci biir comme ni koy artistes yi defee léegi ah, bu ñu nekkee ku nekk di jaay ne maa gën a nekk sa morom maa a kenn du a déplacé wu dem ci keneen ki. non loolu loolu amu ci parce que maa ñoom dèjà miinante wuñu sax xam nga nit bu ngeen miinantewul amul benn ranking wala dara lu mën a dox seen diggante hmm. waaw mais xam naa leen peut-être ñoom peut-être mën nañ mën nañ ma xam mën nañ ma bañ a xam mais. bu yàlla dogalee ñu joué fu ma jege wala dara wala ñuy def yëgal ma ko. Mm. mën naa déplacé wu dem fa. Mm, mais du par exemple Samba Diarra Pape Danse bi koy feccal sama mm. xarit la. Mm-hmm. dañuy déggante lu bari mm-hmm. WhatsApp. waaw sama nit la dañ daan tase soirée salaam Diallo. waa parce que léeg-léeg su ma amee jot dem soirée salaam. ñu invité woykat yi ma ñëw woy comme ne. kon da nga am rapport ak Salam Diallo. bien sûr sama papa la sama xarit la. Hmm. waaw ah loolu am na solo. léegi léegi nag ni nga amee rapport ak ki nga xamante ni mooy Salam Diallo da nga koy jéem a am rapport ak ki nga xamante ni ah, mooy artistes yi nga xamante ni. ñoo ngi ñoo ngi am naa ko ak Yves Niang am naa ko ak Abou Thioubalo. waaw ah, Abou Thioubalo c'est la famille ah am hmm. naa ko ak Seka am naa ko ak pas mal des artistes mais du. xam nga mënuma ñëw ci nit di rek ne ko tey par force nga xam ma mm-hmm. yàlla mooy dogal ngeen di xamante rek mu nekk relation bu naturelle boo xamante ne bii mm-hmm. mais bugguma ñëw nii di la ñuuxu parce que yow yaay diw rek mm-hmm. ma ñëw ne la force tey ma xam la bu ko yàlla dogalee rek li ñuy liggéey déggoo nga gis li may def nga bëgg ko man ma gis li ngay def man ma bëgg ko directement contact bi day ñëw ok mais mais jàpp mais mais force relation la jàppoon ne affaire star la quoi non non non non non du affaire. man dama jàppoon ne tey jii SDA yaa nekk esaaru banlieue bi moo tax tey jii nii xam nga euh, doo mën mais ñii di ma woo ci direct bi ay ay ay ñii di woote ci direct bi actuellement nii xam nga dañoo waroon ibbi ligne bi xam naa ni euh, loolu lañ bëgg a laaj parce que ñu ngi ma doon laaj li nga xamante ni mooy ligne bi euh, mais nag yéen a si jàpp rek ñu waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Khadim Lam nee naa la ndeysaan relation bi nga xamante ni amoon na ko ak artistes yi mais gis nañu relation bu am solo la relation bu nice mais nag actuellement nii jeune talent yi gisuñu lu mel noonu lan nga leen di wax actuellement ni jeune talent yi nga xamante ni ku nekk day jéem a concurrence ak sama non pour man pour man concurrence amul sax xam nga milieu bi moo nekk milieu boo xamante ni bii soo si nekkee di liggéey rek faaw nga am yow say soppe keneen am ay soppeem léegi soppe yooyu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy def ay affaire xam nga diw ñu bëgg kii ñu bëgg kii mais man pour man lépp benn la amul amul amul amul amul concurrence parce que booy seet lu raar la ngay gis ay artistes di werante wala ñuy xeex. si fans yi rek nga koy gis wala yooyu. mais parfois dañuy gis yenn yenn événement yenn artistes yi tey jii nii euh, bu amee bu ñu gisee euh, ki nga xamante ni xaarib ñëw na ñu jox ko micro mu joué mais dañuy gis dañuy siisu parce que man koy présenté koñ mhm. euh, ku ci mel ne Moussa Mbaye j'espère que xam nga ko. Moussa Mbaye moo Mbaye mooy waaw concert bi mu mujjee def. Mhm. Cheikh Seka moo ko doon këral foofu noonu. Mhm. mais gis nañu yenn artistes bu ñu ñëwee ku nekk da ba ñu a da lay jox micro. waaw xam nga loolu loolu moom loolu ci aar lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi ñeneen ñi ñëwaat sax daf leen di dal. Mm-hmm. waaw parce que aar moo demee noonu tey jii man mii loolu dal na ma dalati ma man mos dinaa sentir léeg-léeg ne diw gëj naa soirée xaar ma dem fa ma dem fa mu may gis nii ma koy xool. Mm-hmm. mais su amul yëg-yëgu jox ma micro vraiment duma si def benn geste pour mu kii dama yëg ne loolu la sentir. Mm-hmm. man su ma xewlee su ñëwee su ma ko yëgee ma jox ko su ma ko yëgul tamit te man sax mënuma loolu wax dëgg yàlla mënuma gis artiste mu nekk sama nawle mhm. déplacé wu jóge fu sori ñëw si sama yëf bu ma la joxul nga woowee man du ma am jàmm kon soo ma ko defee dama koy muñee li ma lay defar rek loolu mhm. pour man amul benn inconvénient mais ciwul daal yaa yaa ngi teg ay affaire bien sûr. Mm. bien sûr ñu ngi ñu ngi ci ay projet yaa ngi teg ay affaire maanaam comme yenn concert yi nga xamante ne wala yenn événement yi mag yoo xamante ne euh, day nekk annuel chaque année rek ñu gis ki nga xamante ne mooy Khadim Lam mm-hmm. ñu xam ne bés bii nii wala date bi nii Khadim Lam ko moom si si année bi waaw man nag samay événement damay toog ba sentir ne lii war naa ko mën a def ma def ko yàkkamtiwu ma ko daal parce que man defuma musique boo xamante ne bii dama koy yàkkamti de chaque fois may woote wala non non soo may wooyam pour ma tëggal la dinaa def mais samay concert yi may defal sama bopp. Mhm. waaw def naa ñaari événement def naa ñaari concert. Mhm. benn bu mujj bi yàggul su ma ko yëgaatee fi ak décembre. Mhm. mën naa defaat beneen concert su ma ko yëgul ma bàyyi ba ma yëg ko rek daal. léegi lu lu lu war lu war a lool wala actuellement nii da nga am benn label booy booy booy liggéeyandool boo si. waaw am naa label bu may liggéeyal nee naa la label boobu noonu kii mooy directeur la. Amadou Amadou. waaw Ousmane Camara bi nga xamante ni bii moo nekkoon ci groupe Ndongo Lo doon jouer basse. doon g solo moom moo nekkoon moo moo moo doon g foofu solo moom mooy directeur bi moom moom moom Africa 360 mhm. foofu laa nekk su ma waree def morceau sama 100 francs du si dem daf ma naan demal nga coordonné ak Amadou wala ma dem kër Amadou ñu liggéey morceau ba mu pare mhm. ñu dem mu fay studio ñu enregistré morceau yi ma la yónnee ak clip yi ma la yónnee yëpp noonu la demee ñooy def lépp kon awma lu may yàkkamti wala lu may dem di wala ma ci ñàkk fayda wala may dem ñu may bëmax wala yooyu ta du ma ko def daal. léegi ñoom ñoo gis ngay def euh, liggéey bu am solo ñu apprécier ko wala yow yaa dem si ñoom. waaw man maa dugg ci groupe boo xam ne ñoom dañ faa bokk de temps en temps may woy moom mu hmm. gis sama talent xam ne ah, am naa talent am nga talent mu wax ak man si suuf ne ma hmm. damaa bëgg ñu liggéey nii ak nii hmm. ñu waxtaan ñu déggoo si loolu ci noonu la ñuy liggéey waaw gis nañ clip bi nga xamante ni ndeysaan yónnee nga ñu ko muy clip ah. bi Maymuna euh, bi mu nekk morceau bu nice ah morceau bi nga xamante woy na ci Maymuna Jaawara euh, a Jaawara boobu kan la Maymuna benn euh, doomu Jaawara bi nekkoon président Gambie la ah. mais rakku Jaawara moo ko jur xanaa nga yow waaw sama yaay ki jur ki ma jur. dañ lay génne yow suñuy pare plateau bi <laughs> euh, Malick euh, suñuy <laughs> suñuy pare ci plateau bi dañ koy génne kii fa mu ñibbi Gambie. mais boo leen génnee Gambien yi Sénégal day jeex de. Ah, man sama yaay mooy Gambie mais man léegi yow doomu doomu bi nga doon woy ko waaw maa ngi ko doon woy parce que bi ma jógee fii Sénégal demoon Gambie ci moom laa nekkoon mu jox ma atelier ma doon liggéeyal foofu macha allah vraiment nekkin bi rafet nag mu nekk jigéen bu baax mhm. xam nga nekk euh, jigéen boo xamante ni bi jàmbaar la daal gaynde la mhm. ba pare li ñu rafet mhm. ma ñibbisee fii di def musique ak moom li ma seqoon ak moom c'est normal ma jël woy jagleel ko ko woon ne ko bi may nekk ci yow kontaan naa ci yow waaw kontaan fësal sama sama mbégte ci moom sa cofeel ci moom. waaw ak sa contentement euh, mais nag euh, dañuy dañuy bàyyiwaat rek xaadim nee naa la tey voix moom fa mu mm-hmm. yëngu lu bari. Euh, parce que tey moom day ñëw wane kan mooy xaadim laam wan leen kan ki nga xamante ni moo làqatu ci ruq yi mais ki nga xamante ni aussi moo nekk ci biir banlieue bi di def affaire am solo liggéey bu am solo fi nga xamante mooy au niveau de la banlieue. Mm-hmm. ñu bàyyi ko rek moo Amadou ñu am luñ defar. waaw ñu woy suñu yaay rek. ayca parce que yaay moom. Mm-hmm. mooy loo xamante ni maanaam kenn mënu koo fay. man sama bos dem na maa ngi ñaan suñu borom yërëm ko. amiin ñaatal bàmmeelam. amiin waaye sama lépp moom la. Mhm. macha allah bu ma amee yar sama yaay la bu ma amee teggin sama yaay la. di gis ci man mu baax rek sama yaay la yaakaar naa tamit ñi may seetaan tamit noonu la demee si ñoom. macha allah ñëpp suñu yaay mooy suñu doole. ñun ñëpp mhm. mhm. yàlla ko yàlla yërëm. yaay booy te ma la ma way sama yaayee. ma ne jëleen seeni am amoo te booleeg seen ñi yéene dimbaleen da yeg bàyyi àndandoo luñ ci dooma ndey ndey kenn la baay baay ndey baay baay ñépp la sama yaay jee sama yaay ji gisuma ku ma leen yaay booy sama gàllaal ndeysaan ah Seex Seka fonkal ma Awa Njaay ndax moom oh, yaay dàq na ma ma tukkee amu dem sama ginnaaw man ñu koy nëbee ay dooy ca dimaas ba mu làqoo woon sama yaay dem naay maa ngi koy jooy salali li lee ah.

bëgg sa sama yaay kon bëgg naa la yow sama yaay fonk naa la yow sama yaay ak ñu reen dafa tiis tiis tiis tiis tiis tiis tiis <laughs> kon fonk besal man sama yaay laay tiitaroo waaye di jee kalu kalu jógal kalu booy ak a bëgg di jee kalu ak a bëgg yaayam almaami almaami almaami sama xol dafay tooy su ma koy way sama yaay sama xol day tooy ngay saa sàmb caaraay gi maara fara ji ñu ñaari sama yaayi yaay booy dërgan sàmba ndabe ale sàmba ndabe ndabe mu dum ndaame ñi ñooy maam ndeysaan moo du sàmb samb sama yaay ña nga bokkal yaay man bëgg naa sama yaay yeey ndeysaan ami fay nga bokkal yaay ma nga Gambia ee eh, sama yaay soppe Mustafa xayaarul alamina aka bëggoon yeneen sama yaay moo waral fu ma mënta dem bala ma waccal wa yaa rasulullaay ngir sama yaay moo bëggoon sayduna muhammad muhammad muhammad yaay fay nga bokkal yaay ma nga gànn yaa eh sama yaay soppa Mustafa xayaarul alamina yeah et même quand tout le monde est contre toi reste ta meilleure amie t'aimerais lui dire pour toi avant qu'elle ne la vie mais tu n'oses pas tu n'oses pas tu n'oses pas mama mama ndeysaan mama je suis jamais parti je n'ai jamais changé c'était ma voix et ma taille mama c'est moi ndeysaan yaay booy kon fonk leen seen man sama yaay laay tiitaroo ndeysaan tojal na ma naa jox ak pombiteer nee ma tete aayoo nee ne tojal na ma naa jox pataas ak pombiteer nee na ma tete kon Amadou bu ndaal daful sarxu laa teel yaay booy bàjjen sama rakki baay waaye émission bi euh, naroon na yàqu parce que bu tuddee ndeysaan euh, ki nga xamante ni euh, mooy yaay gis nañ tey jii ndeysaan yaram yi daw na te gis nañ aussi li nga xamante ni moom naroon na yàq émission ci li nga xamante ni doon na ko sentir mu nekk yaay bi nga xamante ni ndeysaan yaay bu gën ci yaay yi ni ñu koy ñaan rek fu mu tëdd yal na suuf woyof ci kawam fu mu nekk yal na ko gënal fi nga xamante ni foofu la jóge képp koo xamante ni ndeysaan làqu nga way dawlu nga ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax mais Mm-hmm. mais dama gis talent. sérieux Malick Faye. man dama ñëw réew mi feeling tey talent laa indi talent sérieux mais yow kii Lam luy sa problème. waa liggéey rek. non luy sa problème ba àdduna wërngël képp xamuñu ah ah promouvoir wuñu affaire bi. waa xam nga loo gis dafa am àpp tey jii suñu papa Youssou Ndour dama koy déglu. balaa muy ñëw ci loolu sax damay ñaanal sama yaay. waaw dafa fees ci man quoi sama yaay dafa. gis nañ loolu. dafa bari doole ci man quoi. dama ko ñàkk. mu nekk mu nekk maanaam bu ma doon bu ma ko doon xayma dama maanaam dafa mel ni nit ku jël ay milliards def ko ci benn affaire di investir lépp daanu. Mm-hmm. am per sama yaay noonu la noonu la toll ci man. ma koy ñaanal fi mu tëdd. am suñu borom leeral bàmmeelam. amin amin amin mais xam nga talent moom boo ko amee am nga ko. li si mm-hmm. des mooy nga liggéey rek. parce mm-hmm. mas naa dégg sama papa Youssou Ndour mu ne dafa demoon mook Ousin Ndiaye ak Mbaye Guèye Faye. ñu dem Gambie. maam affaire bi ñu leen yóbbu woon foofu mu jël am léegi dañoo dem topp benn rëbbkat léegi il faut kooku rëbb ñëw ñoom ñu jàppale ko boyal ñu jël yàpp lekk pour ñu am lu ñu lekk mhm, waxuma mhm. laa paas bu ñu ñibbee mhm. alors man dama jàpp na kon yii yëpp ay épreuve la rek yàlla mën naa xëy rek lépp baax comme ñu ngi def musique bi yàlla may nañu talent ñu ngi liggéey dañu liggéey rek di denc bés bu ne sénégalais yi ah xaarim la am fekk yaa ngeeg lu bari sa poos da rek di joxe waaw foofu affaire bi quoi parce que doo ñëw na nag nit ñi kaay leen damay xew par force génn di saaga wala ngay wax ay wax yoo xamante ni bii mhm. boo siyee ba pare da ngay ñàkk fayda mhm. waaw je préfère ma dal liggéey sama liggéey di ko def ni mu ko waree nit ku ko gis mën na la neex tey ji nit ñooñu di ñëw par ñu naan tepp tepp gën yu gën yu ren ci loolu laay liggéey am na solo am franchement di wax rek ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan mm-hmm. nee naa la ngeen bàyyi xel Khadim Lamb bu mm-hmm. baax a baax a baax a baax euh, parce que nee naa lii talent la mm-hmm. parce que tey nii gis ngeen lu mu yëkkati ba mu dalee def live euh, presque mun nañ ne benn 7 minutes yi nga xamante ni ko ci voix normale euh, nekk artiste nekk lañ ko may gis nga ko mu nekk ndaanaan bu mag a mag a mag a mag nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax mais Khadim lan mooy projet yi nga ni ah war nañ ko mën a xaar fan si xaar ko ñoom kal si xaar ko waa Rewmi TV xaar ko waaw projet <coughs> boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci Amadou. Mhm. am nañ fa quelques morceaux. Amadou tamit loxo bi tamit war na ko xoolaat de. il est dangereux. <laughs> Amadou yal na yàlla wéral loxo bi euh, parce que tamit aussi yàlla mayaat ko kattan ak mën-mën bu baax a baax a baax ba fi muy euh, fi laa laam jóg rek moom it mu mhm. jóg jàpp ci. Euh, parce que gis nañu lu muy def ah, muy mhm. gis nañ benn benn déggoo bi nga xamante ne am ngeen ko seen biir. waaw xam nga tey mooy li ñuy wax rek tey ji mënoon nañu indi fii yëpp. waaw. fii fees dell ak ay musiciens mais du tey lii la rek ay notes la rek. moom mii nag macha allah. macha allah koo xamante ne bii depuis bi may commencé ba léegi. Mhm. moom dafa may daf may leewu rek. dafa may mhm. daf may daf may leewu rek. comme mhm. ni yaay di def doomam. moom la ma def. moo war a liggéey bi di sotti moo war a lépp di baax lépp daal moom la. waaw moom lépp moom la. muy mag ci abu cubaloo. xam nga ni muy jàppalee abu man noonu la may jàppalee. bu ma ñëwee studio am damay ñëw ne ko Amadou. ma mën naa ne bu may doog a ñëw première parole bi laay am mais moo naan ma. nañ si def nii nañ doguma la te këfuma la foofu rek laay bàyyi rek ki nga xamante ni mooy Amadou euh, bu ko defee mu wax tuuti rek ci ki nga xamante ni mooy Khadim Lam bi nga xamante ni moom lañu indi tey. Mhm. artiste bi nga xamante moom moo ko gunge indi ko. ba pare di ko téyal note ah euh, ñu bàyyi la rek Amadou euh, yow it nga sàdd ci ay kàddu parce que ñu dégg nañ li nga xamante ni Khadim wax na la ko léegi. Mhm. wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana wa nabil karim sallallahu taala alayhi wa sallam e, bu ma sant yàlla julli ci sang-sang yi maa ngi nuyu plateau bi yëpp <laughs> di nuyu réew mi yëpp mm-hmm. di nuyu waale réew mi ñu ne waaw ñaari réew waaw di ziar sama mbokk artistes ah. mm-hmm. Mm-hmm. waaw rawatina ak euh, Ousmane Camara suñu président directeur général euh, label Africa 360 bon di nuyu tamit euh, suñu waa institut Camara yëpp. Mhm. waaw waaw di ziar euh, sama waa kër. Mhm. sama soxna Kumba. Mhm. moom mi nga xam ni euh, début xaadim yëpp ci kaw lalam lañ doon. waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan mu defagu mooy studio di ziar tamit samay doom ñi nga xamante si bagage yi lu muy diis diis dañu di nuyu sama yaay. di nuyu samay jigéen samay rakk samay mag. macha allah ak sama rakk yu góor yi ñoom Abou Mika ak Aliou. di wax nag xaadim. Euh, yaayam moo ma ko dénk. ndeysaan dénkaane dafa fort. ndax yaayam daf ko bu bu bu ñu musaan ñëw studio man liggéey ak man dafa metti mhm. parce que dama lay pousser à bout. Mhm. nag bu demee ñibbi bu ko ñaxtoo yaayam ne ko quoi qu'il quoi qu'il mhm. jàppal. parce que kii li muy daj ci yow. yàlla rek moo tax mu koy def. allah donc mooy mu jàpp ci loolu. waaye bu euh, am talent la. te. leer xale bu amee talent. day neexal liggéeyal. Mhm. ndax man su may liggéeyal moom damay am envie liggéey. ndeysaan. pourquoi parce que du ma ko mimee du ma ko mimee da koy woy. Mhm. parole bu ma ko nee da koy mhm. te daf koy teg ci manière bi ma ko bëggee. macha allah moo tax su may liggéeyal moom du ma du ma soucier du ma am souci. macha allah donc damay ñaan yàlla rek yàlla defal ko xéewal. amiin ci li muy def. amiin di nuyu tamit Mati Mbaye suñu. suñu série voilà vraiment. <laughs> tamit. Euh, mu ngi mu ngi bugg xaadim dëpp. ndeysaan ndeysaan waaw euh, mhm. di ziar ñëpp di nuyu sama fans bi. Mhm. Euh, bébé Matin Mbaye bi. bébé Baye Aliou. Baye Aliou Baye Aliou moom sama moom sama yooyu daf koy daaneel. ndeysaan waaw comme ni may daaneel xaadim ci ay waay. Mhm. waaw mais noonu la quoi. macha allah donc maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di jëyoo tamit maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar wér. tamit. kenn du yéen. émission bi concept émission. parce que vraiment lu nice la. te et puis am nañu yaakaar que ni artistes yëpp war nañ fee jaar. vraiment et ñu wone seen talent. Mhm. ndax Sénégal dafa bëri ay artistes yu am talent. Mhm. te artistes yi am talent yëpp nag du du ñëpp la ñu xam du ñëpp a xam. Mhm. te ñu mel ni yow nag ñooy dénicher gars yi. incha allah won ko population bi. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ndeysaan eh, eh, kaddu yi kaddu yi am na solo eh, ci ki nga xamante ni ndeysaan jóge na ci Amadou jëm ci ki nga xamante ni mooy Xaadim Xaadim hmm. gis nga kaddu yi nga xamante ni ndeysaan Amadou génnee na ko dem na ba ne ndeysaan maire bee ko dénk donc te dénkaane dafa fort hmm. mu nekk koo xamante ni aussi ndeysaan moom it du fëkk jëf hmm. def booba léegi dafa jàpp te ne dee du bàyyi ba tey ji ku laal Xaadim dina ko laal tey ji ko tudd Xaadim dina ko tudd donc ndeysaan day guerre bu nekk lu am solo loo xamante ni ndeysaan presque mën nañ ne wax na lépp wax na ah. lépp nekk nit ku ñàkk ñaan sa kaw. maam kii kii lépp la si man. Mhm. parce tey di li ngay def ak man nii daf ma daan woo këram ma ñëw toog mu teg chaise mu teg guitare yeeg lépp. di ma mhm. posé ay questions. ndeysaan su ma tontoo mu ne ma non kenn du waxee noonu nii la ñuy waxee. ndeysaan. dama da ngaa war a am communication balaa ngay musique da war a mhm. xam ni ngay waxee. kon moo la tette kon waaw lépp maam ci lépp la ci man waaw il est tout pour moi vraiment ma ngi koy sant bu baax di ñaan nag suñu borom parce que mm-hmm. mbir boo koy def mm-hmm. dafa war a am fu mu dem mm-hmm. di ñaan li ñuy def yàlla barkeel ko amiin ba ñu mën a jënd kër jox jënd oto jox ko mu xam ne li mu doon sonn ci ñun il a mérité moo ci génn. Mhm. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla. Mhm. ñu doon wax ci euh, macha allah am na solo mais ñu doon wax ci projet yi. Mhm. Ah, ci projet yi nga dugal ñu fa tuuti rek euh, bu ko defee ñu laalaa li nga xamante mooy mot de la fin ñi nga war a gërëm ak yooyu. bu ko defee ñu tëjee ak ambiance. dernier damay damay damay wax ne projet yi mooy ñu ngi waaj a def album. mais album aussi boo xamante bii. yàkkamti wuñ ko mais ñu ngi ci projet yi ñu ngi koy. yéen a koy togg daal voilà. te togg moom da bàyyi mu baar. ba mu ñor pour mu mën a ñor. papa mhm. mu mën nañ ko yónnee ñoom tamit dix personnes mhm. mhm. mais daal ñu ngi ci liggéey boobu bi ci topp mooy xool ba xam décembre bi dinañ jéem a defaat beneen concert woo si soppe yi ñëw parce que gëj nañ ko def mu bëgg a def ñaari at mhm. waaw xam naa fii ak décembre daal dinañ xool waxtaan ak Ousmane mhm. ñi nga xam ne mooy directeur bi moom su joxee feu vert rek incha allah incha allah décembre bi dinañ def benn concert incha allah li ci des nag mooy suñu numéro téléphone képp koo xam ne bëgg nga ñu jouer jàkkaarloo mhm. képp koo xam ne toog nga sa kër am tour wala dara bëgg maak Amadou ñëw nii rek nga toog ak sa famille ñu mhm, la mhm. wala nga bëgg ñu indil la def yëfu xalpulaar teg zirig bi noonu xam nga neexal wala yooyu noonu wala suus yooyu yëpp dañ koy def ça dépend numéro bi mooy 78 535 72 30 mooy suñu numéro képp ku ñu woo rek loo bëgg. bamtuwaat ko gars yi mën a dégg. 78 78 78. 535. 535. 72. 72 30. 30 mu ngi noonu incha allah ku mhm. jot. Mhm. boo bëggee mariage wala ngénte wala lu mu mënti doon. Mhm. dëj rek lañ dul tëgg daal. Ah, kon jeex na kan kan ak kan ngay gërëm. <laughs> waaw maa ngi gërëm nag bu baax a baax a baax. sama yaay di nuyu sam papa. Cheikh Lam depuis Touba. maa ngi koy nuyu di nuyu famille bi yëpp. sama tante ak sama rakk yi ñoom Ibrahima ñoom sëñ Saliou. mu Ndaw maam Bintu maa ngi leen di nuyu ñoom ñu ngi Touba. di ziar aussi sama kër ñi ma fa bàyyi sama soxna. Mati Mbaye nga xam ne maam nekk ak artiste rek dafa metti wax balaa nga mm. ñëwaat nekkaat tailleur franchement muy ñaar yoo xamante ni bii xaw a doy xaw a naqare nekkal lool mm. waaye muy muñ lépp mm. yaayu Baye Aliou yaayu Mama Khady ma koy ñaanal suñu borom lépp loo xamante ni bi sonn na ko kër ga rek suñu borom wàcce xéewal yi ci moom mu gis ko bu baax a baax wàcce ko ci ay doomam noonu laa nuyoo sama rakk Mhm. antalaam nga xam ne dafa maa bëgg lool mhm. sama doomu papa la sama rakku papa moo ko jur macha allah mais ni ma bëggee ñi ma bokkal ndey ak baay sax bëggee wuñ ma noonu mhm. waaw mais maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam noonu laa ziyaare matilaam ak waa kër ga ñëpp Bintu Mbaay sama papa xaadim koñ ba waaw ak ki may liggéeyee tamit sama papa ju baax a fa nekk papa Assane Fall ak soxnaam soxna Fatou ak sama yaay ja ca kër ga yaayu Abdou Fall maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn euh, kenn mooy waxtu yi mm. euh, la xaadim insha allah da nga fiy ñëwaat fekk plateau bi pare bi ci kaw bu ko defee ñu indi xam nga orchestre bi bu ko defee xam nga euh, ni dañuy fecc ba ñoo ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp képp koo xamante yaa ngi woon si biir kër di seetaan sa émission Rewmi Feeling ñu ngi lay bëggee di la ziar bu baax baax a baax a baax ah, wax nag tey xaadim lam ah, la ñu amoon tey di wax nag ñu ngi seetaan aussi via Facebook ñu ngi leen di jaaj jaajëfewaat bu baax a baax ñu bàyyi rek mu tëjee ko en beauté d'ici là portez-vous bien. waaw maa ngi nuyu aussi sama sëriñ nag. Mhm. sëriñ Mountakha Mbacké. sama sëriñ bu baax. dëgg yàlla Mbacké Balaye sa yeex laa xam dong la ñuy jooy waaye yàlla na sa jàmm yàgg. amiin <coughs> ma jëw caw aram caam yaasin jëw di ko mu jëw pin goru numbe njaay saa xeeran mbe njaay jaalo ah <laughs> kalwaay <laughs> ah le le le le njaay ndeysaan tafsira man tey ma way la tey lay way sama waay jaalo kanan jaajar yaay dengel looyaatoo Amadou doomu yaay abutu bolooy eh, jóg ma way su ma wayatee su ma la wayalee yaayam yaay aa ah. ndeysaan aa ah, seetaan leen seetaan leen réew mi réew mi waaw réew mi TV man su ma la wayalee aa ah, ndeysaan yaayam gorom njaaja njaay a mbaala doon ndeysaan yiri mbañi booli ak yiri mbañi ay sa daaro moori mu njaag ba mu lew waalo mbooj tay la a waaye réew la woon Baba Cissé Awa Jaay maa Cissé maa Cissé Awa Jaay Buya Jaay Maxtaar Anta yaay Rambooj waalo ñaaw njang Maxtaar mu Fatim Joob Samba Ndal Maxtaar Fatim Joob ni ko ba mu faatim joob boole sanjo ba day joob ni sanji lor waalo waalo waalo waalo ñaaw bilaay amatu neexu leenam waa wallaay kenn bañu ko yow laa doon seet gis naa la doon seede gis naa ah lu la reer ci man seet ko ci moom mii le yow laa doon seede gis naa yow laa doon seede gis naa Abdalaay daara mbaar ngay maar Matar daara mbaar ngay maar Jaala yaay daara mbaar ngay maar càmmiñal abi càmmiñal abi càmmiñal abi yow laa doon seen gis naa kon merci baay baay ñoo ngay ñibbi merci beaucoup baay baay maa ngay sa xol neex dugal géej ci lii bu mun la woot looy wax noppi bul wax ambiance ni la war a mel nga ni wet jigéen la jigéen teg bi na ma neex